que euh, Sénégal tout le waaye fait divers euh nga xamné euh mo euh, cristalliser attention Rémi, depuis euh, bientôt deux ans L'État tax cristallisé cristalliser attention Rémi, moy qui l'un des protagonistes Nous ko muy quand même le leader de l'opposition euh, di Ousmane Sonko euh, ma jàpp man ne c'est quand même dommage ñu dégg kilifa faut ni toll ñu dégg euh, koo qui est arrivé troisième quand même à la présidentielle ñu dégg ko ci fait divers bu ñu toll motax nak justement mu wara l'air. té dama jàpp ne waroon na leer bu yàgg ndax bu leeroon bu yàgg bu doon pour man euh, mooy li euh, Amadou wax Amadou def naa def nañu euh, defar nañu cours magistral te xam naa yàkkamti naa dégg kilifa <laughs> ndax voilà euh, 17 millions d' experts ñoo nekk Sénégal tey bëgg naa dégg maître. kilifa voilà non je sais am nga loo ci dund man it am naa lu ma ci dund. <laughs> donc moo tax confrontation yow mën nga wax man mën naa wax parce que man y' a même pas deux mois def naa confrontation man donc je sais exactement comment ça se passe une confrontation te mën naa ce li euh, Amadou wax donc damay ñëw tuuti qui ci euh, justement euh, li xew dama jàpp euh, justice réew qui li la amé occasion pour restaurer image pour le bien de tout le Sénégal. Mm. que le droit et seulement le droit soit dit Moi, lan moi, question me nga viol amna, na viol amul parce que dans ma diapone, si gënoon gaaw yu pas eu 14 morts il n'y aurait pas eu beaucoup beaucoup de choses tey waroon nañu ni ñu ni ñuy euh, gaawalee kaaw ñoom kilifa. Hmm. toog naa fu ne jooytu ko. ni ñuy accéléré kaaw ñoom kilifa. Hmm. patam patamalee. Hmm. yóbbu leen fan yi yéen yéen a gis ñu bëri euh, kii kii Kayta. Fadilou Kayta euh, Fadilou Kayta ñeneen ñi les activistes les karang-karang Karim Xurum Xax Xarum Xuru Xax kooku vraiment sama xarit la ma koy nuyu. Mm. Euh, kële euh, Sitor Ndour. ñëpp ñu patam patamee leen dugal leen rapidement jugé procès karang karang définir ne naa yooyu yëpp bii ça n'a pas eu pourquoi. Mm. kon la loolu mooy laaj bi xam nga li wax tout le temps gis nga ñun dañoo war a di ñeme. di wax dëgg ñeme wax dëgg dafa am solo parce que solo bi mooy c'est pas un match de football du lamb dafa nekk loo xam ne dundinu nit la xam nga ku euh, euh, tribunal yëfu tribunal yëfu justice ku ñu fa convoqué rek tiit nga duñ la foos kilifa xam ne li muy wax man xam naa li may wax ndawul kon waruñu fee nag ñi naan ay pour ak ay porok ay nangam ak nangam. non ci ci lolu yang koy wax. Mhm. que euh, dañu wara a dem ci dëgg gi le juge d'instruction. il instruit à charge et à décharge. xam nga prendre un verdict dans son dans son pour prendre peut-être une décision wala euh, ci li nga xamné fofu lañu jëm dans son intime. xam nga xam comme ni nga ko waxee ci ci li nga jot xam. xam nga dans son intime conviction est-ce que dina ko mën jël sans pour autant avoir des preuves. xam nga actuellement euh, euh, dafa am lu am solo euh, instruction bi Amadou wax tay ñep dafa na d'accord nañu ne fofu lañu tollu Boko mhm. boo ci lu simple suma juumale mën mëna wax na enquête Ben, fofu lañu tollu parce que ci mécanisme bi ci ku nek am na rôle. da nga dégg ay retour de parquet ay ceci ay ah, envoyé man mii sama dossier bi ma am c'est pendant devant la justice ñun ba ñu paree confrontation dañu ne vous êtes en ci institution la ñu nekk kenn amul droit wax ci nangam ak nangam mooy lu kii wax sànq ba pare euh, da dégg am na complément d'enquête actuellement man sama bosu bopp ci loolu la nekk parce que juge bi dañu dem yóbbu ko jàllale ko parquet parquet gis ne am na lu ñu waroon déglu te c'est pas

Euh, juge bi moom moo yor dossier am ma d'accord ak li du wax du nit moo kenn mooy ñëw ne ko defal déglul kii par force c'est lui mooy xool kan la war a déglu te dama jàpp ne foofu tamit nangu naa li kilifa wax képp kuñ ci tudd moom pour l'éclatement de la vérité mm-hmm. il faut ñu déglu la mm-hmm. te dama jàpp ne li commencé nii

ba tey juge bi moo koy décidé léegi nag bu ñëwee wax li muy wax ku ne nangam te sànq am na loo xam ne euh, am na luñ ko ko fi wax te dëgg la mooy euh, ku ne si ñoom ñaar ki accusé ki ñu accusé am nga droit noppi ndax boo boo naree wax loo xam ne da lay yàqal nga noppi même devant la barre tribunal ba bu la neexee sa nga fen nga ñu baal ma ci kàddu yi boo boo boo naree wax loo xam ne da lay dugal boo neexee nga noppi am nga ci droit système de défense la maintenant man li may rafetlu. mooy li ñu commencé au moins justice commencé nangu na jël yëf yi à bras corps léegi dégg naa lundi war nañu déglu capitaine pour xam nga kon mooy li ñu wax nii kon yëf yaa ngi avancé parce que lii dafa war a leer faatu question bi nga posé moo am solo xam nga pour man passion bii mu suscité ñii naan violé naa ko violé wul complot laa ko du complot waa léegi ku ko war il faut mu am ku ko tranché man mënu ma tranché Amadou mënul tranché kilifa mënul tranché parce que ku ne fii ku ne booy wax sa émotion ngay wax sa xalaat ngay wax da ngay interprété mais ñëkk a ndax en réalité. ñëkk a ba ñu ba ñu dajee. voilà parce que en réalité. en réalité Fatou indiwul ah, dara lu leer ci table bi aussi xaaral ma wax la Fatou xaaral ma wax la Fatou dama wax ne euh, accusatrice bi nee nga. indiwul dara leer. Mhm. waaye kañu accusé ba tey tontuwul ci benn fee parce que xam nga lu am solo d'accord naa ne yow mi accusé yow mu tuumaal man mi ne kilifa moo ma def lii war ngaa prouver la kilifa def mais kilifa tamit ci intérêt moom war naa wan kee na ko waxoo dëgg. à décharge à décharge parce que li ma wax man nii man dafa am ku ma tuumaal dara man en personne ay Aïssatou Diop am ku ma tuumaal dara ma jël samay dërëm ak ñaar dërëm jël avocat fay dem dindi par bu dindi tuuma ndax fii kuñ si tuumaal yow kële am na intérêt kële kële tuumaal wax ne prouvé ne wax na dëgg mais yow ma ñu tuumaal yaa ëpp intérêt. est-ce que ki ñu tuumaal da doon xaar ki nga xam ne moo indi ay preuve pour que moom mu teggi moom laa wax xam nga kon finalement. donc la première personne xam nga xam nga kon Fatou finalement dans ce dans dans dans dans ce cas précis. Mhm. l'un et l'autre kenn ku ne am nga intérêt wax ne li nga wax dëgg la mais ci lii dama jàpp ne man ki ci ëpp intérêt reste et demeure Ousmane Sonko. parce que ci confrontation bi bu ñu bu ñu sukkandikoo ci li ñuy gis ci journaux yi nee nañu euh, euh, Adji Sarr tontu na laaju juge bi tontu na laaju parquet waxante na ak ay avocat wam kële euh, Ousmane Sonko ba yëf yi commencé ba tey complot rek lay wax ci fee en question liñ ko tuumaa ci viol nangu ci tontu benn laaj nangu si tontu ba bu amoon di nga dégg ñu wax ko moom dane complot la mais complot bi muy wax est-ce que moom wax na tontu laaj ci li ñu dégg mooy bi ñu ko nekkoon ndax séq nga ak moom dafa tontu ne musul séq ak moom loolu ci tontu laaj la bokk xaaral wax la xam nga dafa ne musul musul musul mais loolu fan la la ko wax mais xam confrontation biñ tax ñuy wax xam confrontation bi ne question pour moom infamant du ci tontu maître El Hadj ak le parquet léegi euh, foofu li ma fa bëgg wax mooy xam nga complot bi muy wax complot nii la demee dañu dañu ñëw ñu nii nii lañ ma jëlee nii lañ ma defee nii nii lañ ma kiiwee nii lañ ma nangamee ba loolu am amagul kon lool moo tax ma ni mais justice foog mu leeral ko faatu parce que loolu rek la ñu soxla ñun ndax lu mel nii kenn sañul taxaw ne c'est la première fois mu am fi mais ku ne sañ nga taxaw ne c'est la première fois quelqu'un bu am qualité Ousmane Sonko ñu tuumaal la lu ñu toll kon nak ma jeexalee fofu justice sénégalaise obligation la am mu dem jusqu'au bout ñëpp xam li xew lan la parce que ci bir salu ci wit boté ba Ousmane Sonko dong moo fa nekkoon ak Adji Sarr yàllaa leen diim

rek na lan TikTok na ko ku nekk ubbi bés bu yàlla sàkk nit teg ay incohérence Ousmane Sonko parce que nag l'un et l'autre bu ñu nee bu ñu nee Adji Sarr def na ay incohérence rek mais Ousmane Sonko mais mais catalogue la ci yor ci ay incohérence ci ay incohérence pourquoi personne ne pointe les incohérences les incohérences d'Adji Sarr pourquoi pourquoi ñëpp a ngi liir ñëpp a et pourquoi yow aussi parfois ci incohérence wu Adji Sarr yooyu doo ci taxaw li ñenn euh, trop de contradictions, bi ci mujj. Mhm. c'est sa grossesse bi nga xam ne moom la waxoon ñu seetaan ko nga seetaan ko certainement. Mhm. Après, elle revient pour dire qu'elle n'a jamais été enceinte entre autres yoo xamante est-ce que parfois yow aussi doo ci taxaw. xam nga man man li ma man muy Adji Sarr muy euh, Ousmane Sonko euh, ñoom ñaar ñëpp ay Sénégalais Euh, Adji man naturellement naturellement sama compassion dafay dem ci moom ndax jigéen la comme man naturellement sama sympathie day dem ci moom ndax xale la te kenn ku nekk yëg nga dund nga la muy la mu fa mu jaar ak li ko manqué ba mu mujjee ci fu mel ne Sweet Beauté nga xam ne ñun ñii jigéen man mii rus naa romb lu mel ne Sweet Beauté di ko xool kenn ñaanul yàlla am sa doom sa mbokk sa xarit bu dugg Sweet Beauté kenn ñaanu ko yàlla kon man damaa jàpp ne te chaque jour nga dégg ni ma koy wax ne Adji Sarr c'est d'abord une victime de la société donc tey yaa ngi wax sànq xaw ma yaa ko wax xaw ma kenn moo ko wax fii assurance bi mu am léegi te moom wax na ko ci dernière sorteem nekkatul xale parce que na fi mu jaar yëpp ku fa jaar di nga takk ban. je suis contente de vous est-ce que c'est la seule raison xaaruma non raison yi bari nañu hmm. tay bu taxaw diko diko di ko décote dafa bëri hmm. xam nga da nga am question bu am solo dafa am question wa Fatou dafa am question mam solo boma laaj léegi hmm. nga ne ma euh, pourquoi man duma xaw point ay incohérence nangam xam nga euh damay wax tout le temps euh aji sar euh c'est très dommage pour elle te yàgg naa ko wax aussi loolu tamit moo tax ma ni xëy na man nit ñi dañu dul déglu bu baax wala lu ma jox nopp bu baax bi mais man aji Sarr te mi ngi may déglu loolu mën naa ko wax fii peut-être c'est une petite excuse man aji Sarr xam nga je ne la connais pas mosuma ko gis on se parlait de temps en temps au téléphone waaye depuis un certain temps am na rupture nga tax parce que dafa am ñaar yu mu def yoo xam ne dama ko ci jëlee ragal te li may wax nii euh, am nañ ñu xam dara xam nga nag man comme ni ma wax rek dama yàgg ci Sénégal ñëpp kenn kenn ku ne mën nga bind livre ci man <laughs> kii di wax nii kii mën na bind ci man livre xam nga tamit reetaan euh, dafa def ñaar yoo xam ne dama ko ci ragal mooy bu njëkk bi cette affaire avec Mamour Diallo enregistrement man yàgg ngeen ma dégg may wax fii affaire enregistrement boo ko xasee ba def dama lay ragal te ça elle fait deuxième chose bi nga xam ne def na ko mooy dem toog ba ci bureau doyen des juges mu enregistré waat man xam nga ragal ma ko ma enregistré man parce que wax dëgg yàlla li may wax ci kaw mais procédé bi laa ragal moo tax ma ragal ko man euh, te mi ngi may dégg am na yoo xam ne nag jaruma koy wax fii waaye euh, moom aji wax naa la ne euh, Sonko dafa bëri ay défendeur dafa bëri ay avocat mais il faut bien que cette petite là moi quand même nous nous près oreille attentive cette petite là c'est quand même euh, un peu David et Goliath cette petite là c'est quand même une fille qui, a fait face à un mastodonte qui s'appelle Ousmane Sonko il faut que les gens soient honnêtes il faut que les gens soient honnêtes ku waxal Sonko waxal aji Sarr affaire grossesse boobu ngay wax moi li ma gis ci aji Sarr j'aimerais bien sànq am na ku ko wax fii nga ne ko fan la ko waxee wax dëgg yàlla man je demande à voir j'aimerais bien kenn yónnee ma ko wala ñu teg ko fii bi ko amee. man bëgg naa mën naa la ko wax léegi. bëgg naa moi je peux te le dire. Euh, bëgg naa moi je peux te le dire moi je. j'ai non non ça dire il faut aussi qu'on soit clair dans ce que l'on dit il faut pas qu'on fasse des allusions quand elle était avec le capitaine Touré elle a dit bo jëlee enregistrement bi mu def avec Leral TV aussi fofu moom moo sax Ndeye Khady Ndiaye moo ne ma jëlal café ak coca cola ndax nga avorté. mais Fatou Abdou. elle a dit Fatou Abdou. lolu kay c'est des choses yo xam kenn mënu ko néew aussi. j'ai relevé quelques quelques petites non quelques petites choses rek. boo bëggoon a ah, mais loolu c'était pour clarifier aussi. elle doit terminer elle doit terminer pour que quand même ni ci dess ñep mëna non j'ai on a reçu énormément de je reviens à vous bien sûr. vous me non non s'il vous plaît s'il vous plaît non non monsieur Sarr voilà avec tout le respect que oui. je vous en prie j'attends voilà légui xam nga Fatou lan la bëggone préciser.

Mhm. sénégalais ñoo ñuy déglu fii ñu fi toog ñëpp ay kilifa luñ kenn ku ne am nga sa avis. Mhm. waaye man li ma li may li ma li may li may sàkku rek mooy wax dëgg yàlla ñu ma ko ñëpp may. yeggaleel par rapport mooy waaw mais c'est important ma préciser parce que damay bañ dara xew fi mhm. ndax fii kenn ku nekk rek <coughs> ñun ñëpp dañuy seetaan xëy na ñu ngi doog gisante nii en direct mais kenn ku ne da ngay seetaan kan mooy kan. mais il faut qu'on avec respect qu'on je ne suis pas venu ici pour ay combat ay nangam ça c'est très petit Quand on est na wax on est droit wax sa xalaat ni mais il faut qu'on s'écoute c'est pas un débat entre man eh et ben personne on, pose des questions les gens répondent donc il faut qu'on se respecte maintenant je dis man grossesse boobu dama bëgg déglu Adji Sarr di wax publiquement ne man damaa nekk en état man dégguma ko li ma dégg mu koy wax mooy mësuma wax ne dama nekk en état te pour man Fatou nga baal ma foofu laay jeexale je veux pas monopoliser la parole pour man biir naak biiru maak nangam ak viol ak nangam nangam euh, dafa am loo xam ne dama buggoon ñu ñëpp ñu àndandoo d'accord si te yàgg naa ko wax cette affaire Adji Sarr Sonko doonuloon mës a am wax dëgg fa yàlla bu doon Sonko toog na këram jàpp sagoru ñaamaram du am waaye xaara faatu waaye wax dëgg yàlla ba Sonko toogee ñépp di ko dégg mu ni dem naa suite bote pour man fa la làmba jeexee te ñi ma dégg ñëpp ñu koy défendre amul kenn koo xam ne mës naa ko dégg mu ni mais pourquoi quand même Sonko dem sur côté mais il faut que les gens se dem se disent aussi que non Aïssatou laa ko bëggoon waaw non après nga yónnee ma ko jërëjëf nga yónnee ma ko léegi mhm.

est-ce que vous euh, nga def opinion aujourd'hui sur le viol bu ñu euh, beaucoup de contradictions beaucoup de manipulations également ci li nga xamné un dossier de part et d'autre bon en tout cas c'est euh, une affaire